Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. barakaatu mbokk yi maa leen nuyu di leen ziar bu baax di wàccee ku nekk wàcce waayam eh, di leen sant di leen gërëm di kontaan si di daje ak yéen si chaîne chaîne YouTube bi di les grands secrets eh, tey nag damaa ñëw indi leen wàllu kaaraange ndaxte yéen a ngi soxla lu jëm si wàllu nopp defar diggante neexal diggante waaye diggante tey bu demee ba neex sax te amul kaaraange te protéger wu leen ko. wala protéger sa yaram day tax attaque bu ñëw rek day dal sa kaw te bu leen déggee ni may waxee tey ngeen xam ne maa ngi waxee xol ndaxte nit ñi tey dañuy gis ñoo xam ne dañuy ànd couple couple bu neex wala diggante bu neex boo xam ne ay xarit leen wala patron ak employé wala jëkkër ak jabar wala yaay ak doom wala famille mu taxaw ne lii moom du am di ko jaral nag lu ne laa la wax mu koy jaral yow nag comme kooku noonu moo ko jaral lu ne pour mu lay yàqal yow defal lu ne yow tam mu jaral lu ne pour pour yow nga nga defar sa bop ar sa bop ar len sen bop ar len sen njabot ar len sen lepp bu ngeen ni sey ar len sen digeunte yeen saa da ngay xey xey rek problème bi am lu ko waral do ko xam te mystique yak dafa bon nit di nit ñi dañuy ñew yak digeunte yo wallahi tallahi la wax mom tay su teewon sax digeunte bu mën ko mën ko mom mën na si jëriñu waye da ngay yakal bu nga xam njabot gi sax dañuy dem bu duñ amuti sax Euh, euh, cofeel ci seen baay wala seen yaay wala nangam nangam dégg nga dafa métti kon nag euh, nit ñi di moytu loolu noonu di nit def nit ñi ay liggéey bon nañ moytu loolu jug leen seen bopp ngeen aar seen bopp tey nag secret bu leen jox mi ngi nii ginnaaw bu ngeen defee kon bisimilah rahmaani rahiim dangeen ubbi ngeen def kon bisimilah rahmaani rahiim ngeen bind ay bi ngeen gis ci kaw muy maa jixtum bihi sihru inna allaha suyibtuluhu da ngeen koy bind juróom-ñaari yoon su ngeen paree ngeen teg si max tax tiilun ngeen gis noonu moom laa bind maxtaxtilun juróom-ñaari yoon ngeen bind la mu xam na jaxadin moo tam juróom-ñaari yoon nga koy bind dégg nga maa jëftum bi xii sixru inna allaha sibtiluhu juróom-ñaari yoon nga bind maxtaxtilun la mu xam na jaxadin juróom-ñaari yoon su ngeen si paree ngeen dog see teg yi ngeen di gis mu ñëw seen écran carré baa ngi nii carré bii nag danga koy bind comme ni nga ko gisee sept fois nga koy bind mais fii six la fi 6 la septième bi dina ñëw ak euh la mo xam ne jaxandin bi ni nga gisee ni nga koy bindé deng mi ngi ni am yene saa am ñu lay yónnee message naa la leerut mais xol leen bu baax ndax ndaxte ñom ñom ñom ñom ñi nga gis ñëpp ñom ñëpp ben la dama bind ben bam tukku bam tukku bam muy six bu ko defee yow so koy bind xolal kaas bu ci gëna a ndax maxte tiilun bi mom lañ bind juwalante ko deng amna ay ta amna ay ya amna ay mim amna ay ha amna euh ay mim waaw bu ko defé ni ngeen koy 7e bi mo nek ni 7e bi sax mo gëna a mo ngeen ko jël léegi li ngeen ni bamtu rek ba muy carré bu ci kaw bu ci suuf nak moy la mu xana jaxadin bi mom tam da ngeen koy bind ngeen jël mim bi mim la mu xana jaxadin bi gis nga nuñ ko teggé noonu khatim ngeen teggé ko ni ngeen ko gisé so ngeen fay ngeen tekk ko allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam képp koo xam ne jógal na la pour liggéey la li boo paree saafara nga ko def sa ngoog képp ku jug pour liggéey wala mu jug pour def lu bon wala mu jug pour yàqal la moo xam si liggéey moo xam ki ngay bëggante wala ku mënti doon incha allahu taala kooku da nga gis muy torox nii di dem du mën ci yow dara dara dara dara du ko mën ci yow kon fexelee ngeen def ko ku ko mënta def sama numéro ngi noonu comme ni ma koy faral di ko joxe toujours rek ku am soxla na ma woo ku am si man soxla na ma woo su ma wooyee si farat si njub man dinaa waxtaan ak yéen te wax naa ne ko du ma sëriñ woote wu ma sëriñ du ma sëriñ maa ngi sama yeneen mbir yu ma xam ne maa ngi si ku si am soxla daal te yaakaar ma si ginnaaw ñu ñëpp bu ñu àndandoo yaakaar yàlla ma dinaa xool li mu si mën ma def ko dégg nga am na ñu si bëri dañ may laaj da eh, sëñ bi dama bëgg nga dimbali naa su ma nee la seetaloo teg sama loxo te nit ki li ngay teg si loxo nit ki da kay natt en fonction si yow sa sa sa sa bëgg-bëgg. waaye nag nit ñi dafa bëgguñ loolu koo xam ñu la déedéet sëñ bi wax ma rek wax ma ñaata ko ko ne si nangam mu ne a ah, loolu bëri na nangam nangam kon ba leen di tardé foofu man ki ma woo man la seetaloo teg sama loxo rek seetaloo teg sama loxo du nekk lu tuuti du nekk lu lu rëy ndax nit ki lu mu am lay joxe dégg nga dañ fi nekk pour dimbalante nekk ci pour pour pour pour di pour di euh, enrichir wala di seet di nax nit ñi wala nangam nangam dañuy dimbalante rek te yàllaa yor ndimbal yàlla yàllaay nangu ñaan yi kon foog ñu demee ak yéene foog ñu demee ak njub yàlla mën a ma ñoo nangul waaw kon nag tey lii laa leen andiloon te ngeen fexe ba nga ji ba ngeen jëm koo def te ngeen am ko ut leen kaaraange seen bopp am na yeneen yoo xam ne dinaa leen ko jox bépp kaaraange bi mu leen mosoon a jox ak yii ma ak tey mu leen jox nii boole leen ko yàlla dafa leen jàmm yàlla aar leen sàmm leen bi jaay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi fi dinañ jox di daje incha allah suba salaamaaleykum wa rahmatullah